képp ku ñuy marabutaas amul wallahi daa fekk kon lii ñuy lii ñuy doomu aadama ñu teg ñu jànkonteel ñun daa fekk loolu dala dalagu la yaa ngi dégg loolu métti lool ñu ànd ci ngëm yàlla gu rëy suñu liggéey yàqu ñu ànd ci ngëm yàlla gu rëy gu rëy rëy te xam ni mën nañ ko jàpp comme dogalu yàlla la ndax ci loxo doomu aadama la jaar beneen bi ci des yàggul même pas trois mois yàggul dara

ba 19h 5h du matin ba 19h dañuy def amuñu lu ñu mën a def ba ndox bi dem dañuy jënd ay kol 10 000 12 500 yi kol yooyu dañ koy jënd buñ ñu ko jëndee yaakaar ni problème la ci kii bi ci tiwo yi métti loolu. problème bu kii bu nekk solution bu ñu def rek jusqu'à ñuy nodd gee man ak sama ñaari mag ak sama benn jarbaat amuñu benn solution. ci non lañ tu lañ am lañ xalaat ni li y a quelque chose am lu fi nek légui buñ ci biñ ñu xolé ten bi lañ dem fekk fa ñu def ci ben liggéey bo xam ni liggéey bu graw na sëñ bi liggéey bi garaaw na liggéey bo man suma ko dee xalaat sax sama rongoy di bëgg a tuuru man ak man lolu nan lañ ko mëna defé doomu adama ab julit bokk ci xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana nan nga mëna defé yenn yi nga def ko sa morom julit dem ba fi mu liggéey nga def ci liggéey boo xamante ne liggéey bi doy na waar sëñ bi liggéey bi doy na waar liggéey bi doy na waar lool man dama yaakaaroon ni dama yaakaaroon ni doomu adama amul xol boobu am ko ndax ab liggéey boobu demee ba ci def perkal perkal bu nu xaatim perkal bu nu xaatim ah gura gura goo xam ne kenn xamul fu mu sunguf ah loolu lépp ñu def ko ci biir liggéey bi sunguf sunguf soo xam tani mën ñu la wax ban façon sunguf la ci àdduna ay ay puso ay brin almet ak ñaari man li ma gën a jaaxal nag ci àdduna mooy ñaari biya 500 yi nekk ci bi liggéey bi man loolu moo gën a jaaxal ak 11 puso lépp ndax ndax kan ndax ñun suñ dara bu mu avancé man nag yaakaaroon naa ni doomu adama soxorewul noonu ci àdduna yaakaaroon naa loolu mais gis nga nit man nga ko soxoral lu nekk ba dess muy dem di liggéey nga di ko wax deug yalla kep ku ni marabutas amul dafek fekk man limu jankontel man ak samay frère da fekk dalu la waaye bu dalé do ko wax mukk man musuma gis lu mel non ci aduna ay liggéey yo xamantani man mi di di wax ni man élève la dama don jang waye lolu mu yak sama sama jang bima ma wa def bac lolu mbir yoy mu yak sama jang kon man xam naa lan mooy marabutaas xam naa ko bu baax a baax a baax a baax lii tey moo wëlbati ko waat ñëw fii ànd ak samay mag di liggéey loolu mbir moomu tam yàqat ko encore waaw wàllu sëriñ yi nga xamante ne nii dañ leen fay ñu def ay liggéeyu bon liggéey bu nekk te yemuñu ci dem ba ci beneen bi nga xamante ne nii fa lañ beneen tool bi ñu def ci benn liggéey boo xam ne liggéey boobu ay béjjën béjjën benn béjjën la ñu ëpp ak morso bu xong bu am ay petaaw. ci biir ay poussam moo fa nekk encore ci biir ay poussam moo fa nekk ak percal ñu aw ko ñu xaatim percal dugg ci biir béjjén bi kii ko ñu ko awal morso bu xong bu am ay petaaw boobu noonu sama way jur bu góor moo ko sulli moo dem ba fa muy tëdd moom fa lañ ko ko defal garab bi nga xam ne fa la nopp lu fa lañ ko defal liggéey bi kon képp ko xamante ne nii encore une fois képp ku ni marab tas amul wallaay bu la jàppee nga xam ne am na am na dëgg ñay baax ñoo ngi baax mais ñay bon ñoo ngi bon ba léegi wallahi te yonente bi dafa wax ni képp ku liggéey nit ba mu dee yow mën nañ laa considéré mën nañ laa def sab atte mooy atte rekkatu nit loolu mooy sab atte kon wax dëgg yàlla métti na lool métti na lool wallahi loolu daal laa amoon ci li may wax ci mbirum marabtas